Euh, effectivement euh, ñi ngi maslu njabootu na ba Balde nekk une famille bu am dine bu dëkk Kolda yàlla indi nattu li jaarale ko seen doom euh, waaye ñun nu some des légalistes dañu tàmm di tëkku ci tënku ci li nga xam ne moom la yoon wax yoon nee na waaja teg nañ ko loxo pour les incriminations de détournement de mineurs des incriminations de pédophilie qui sont condamnées par le code pénal sénégalais du wax waxi Jamra du waxi presse en ligne bi tribunal moo ko wax parce que procureur moo jël dossier bi jébbal ko le juge du euh, huitième cabinet kooku daal di ko placer su man daal dépôt ñu defere ko alors kon ñu ngi masalu njaboot gi mais c'est l'occasion pour tontu ci li nga wax la indi wax ja parce que xale bi mu ngi émerger fan si ci seen petit galle ne nañ wax ne fa la feeñee fa la jógee nag daal di am euh, li mu am yëpp ba feeñ ba waa ji sous prétexte ko daf koy encadrer euh, daal di ko def accorder toutes les faveurs que vous connaissez waaye waa ji def na preuve de légèreté na ngay gis xale bu mineur sous prétexte que da nga koy indi Dakar mu jege son centre de formation ak yooyu maa ngi nee woon sax xanaa daf koy yóbbu ci benn kër sëram wala benn kër tàntam ñu encadrer ko dans dans une cellule familiale waaye defoo loolu nga isolé ko utal ko appartement c'est suspect waaw loolu rek parents yi waroon nañ ne ah lii day xaaral ñu tey waaye parents itam ils ont fait preuve de naïveté euh, ba de wax nañu ne d'après le procès verbal d'audition chaque fois bu waa ji seetloo ne xale bi fa mu ne mu ngi fay bëgg a miin wala nit ñaa ngi commencé di seetlu mu toxal ko yóbbuwaat ko feneen il paraît que def na ko six fois kon nag la volonté de détourner euh, une, une, une jeune fille mineure elle est elle est alors de sorte que ñun ñu ngi ciy profité Youssou Ndour mon ami Youssou Ndour ak sa bu baax bi euh, Ibadou bi Ngone nduur dama leen ne nañu bàyyi xel baat bu am solo bi suñu maam ñun ñëpp wax di Kocc Barma Kocc xam nga lu mu wax dafa ne ku ñëpp a tufli foog nga tooy te comme que nag seen petit gàllay tuuma yi bari na naan xale yu bari teggi nañu yoon ba ñu fa jaare ainsi de suite ba bii mooy bi ci mujj gën a fës may ñaan Youssou Ndour mu xoolaat seen petit kenn bañul dans un pays euh, souverain nga xam ne da ngay ittewoo dekkal cosaan ak di dundal sa culture kenn bañul ci wàll woowu euh, ngay def ay effort pour que suñu patrimoine culturel ñu mën koo fësal ñu mën koo taaral kenn bañu ko mais il faut éviter les dérapages yi nga xam ne dafay jëm vers la débauche et la perversion alors ndax wax naa ko sànq sama njëlbeen wax du Jamra rek ko ko wax mais ñu bari jë duut nañu baaraam seen petit gàlle Youssou nduur maa ngi lay ñaan ndax lu baax rek nga bëgg yow recevoir nga ma sa kër fële euh, ñu waxtaan si kanamu Mara Dieng waxtaanu lu soxal réew xam naa say préoccupation ci Euh, sàmm ndono lu rafet li fi mag ñi bàyyi ci wàllu jikkoy rafet ak yooyu xam naa say préoccupation alors il ne faudrait pas que l'histoire donne raison à l'opinion par rapport ak seen petit gàlle ñee ngi naan day pervertir xale yi ñii naan day lii ma ne lii moo ci am ak lii moo ci amul waaye Kocc Barma nee na ku ñëpp comme que ku ñëpp a li nga tooy neel teg te nga def taxaw seetlu yàgg ngooni ngeen xool ndax da ngeen koy réformer bu laajee ngeen supprimer ko remplacer ko par autre chose ngeen supprimer ko remplacer ko par autre chose parce que très souvent dinaay wax euh, euh, Simon Faye bu euh, seen TV defe na ak beneen journaliste boo xam ne doom la ci Martin Faye bi fi nekkoon que na ngeen inspiré wu ci mag ñooñu ndax ci wàllu tàggat xale yi ngir ñu xam seen cosaan fonk seen bopp fonk seen patrimoine culturel Martin fay xàll na yoon bu rafet mais malheureusement gisuñu kenn ku ko ci wóolu moom moom kenn ku ko ci wuutu ndax moom moo fi daan créer euh, le génie en herbe da daan poser question ay xale pour ñu xam seen valeur jóg ne la Lat Joor Ngoone Latiir lan nga retenir ci ay action xale bi ne moo def lii moo def lii moo doon xeex ak contre colonie et lan nga retenir ci Aline Sitoé Diatta nga ne ah ñu ngi ko daan surnommé la Jeanne d'Arc de l'Afrique ndax moo doon xeex contre l'invasion colonialiste euh, particulièrement euh, au niveau de la Casamance loo xam ci le drame de euh, Talatay Nder nga ne ah suñu ay jàmbaar ñu maam yoo xam ne euh, c'était dañu révolté woon contre les esclavagistes moor yi leen bëggoon jël def leen des esclaves sexuels ñu mu jaral leen sax ñu ñàkk seen bakkan ba xaru et cetera et cetera donc xale yi dañuy mujjee am fierté d'appartenir à un peuple qui ay une histoire, qui a une culture et qui a des héros et des héroïnes qui se sont distingués par le passé, par leur volonté de refus de, de toute forme de domination coloniale. Alors, loolu Martin fay daan def euh, maa ngi ñaan Youssou Ndour di ñaan tele yëpp ñu inspiré wu ci dafa bokk ci li tàggat xale yi ñu xam seen bopp alors moo tax nag seen petit galet na ko Youssou Ndour réformer bu fekkee réforme bi mënul ne na ko tas remplacer ko par autre chose waaye à la kuliyaalin le groupe Futur Média il faut ñu am une rubrique boo xam ne c'est c'est culturel ñu jagleel ko tout tànk yi ndax ñu mën a xam seen valeur ak seen patrimoine culturel je suis fait d'accord mais comme que ñëpp a ngi tofli euh, seen petit galle te wolof nee na ku ñëpp a tofli nga tooy il faut avoir l'humilité def benn taxaw seetlu ñoom ñu seetaat seen bopp euh, groupe Futur Média mën a jëm kanam incha allah